dal leen ak internet yi ñoo ngi nuyu di leen ziar di wax képp chaîne bi lay ñaan euh, vidéo bu ñu rek nga bokk a gis wéy di like di commenter également euh, te di partage vidéo c'est très important euh, tey dañuy wax ci ci ci l'attaquant franco-sénégalais bi nekk Southampton donc gis nañ ko di côté de Southampton il marque des buts instant bi surtout ci petite catégorie mais euh, récemment gis nañ ko ñu match fa coupe contre Manchester City mu marqué on peut dire que ne moom moo éliminé euh, City ci ci ci ci ci ci coupe donc aujourd'hui euh, mën nañoo wax que ne il est en train de confirmer son talent parce que ñun yàgg nañ ko suivre euh, du côté de Bordeaux muy dougal beaucoup de bi ci sen sen équipe réserve même euh, année passée bi mu que Bordeaux nekkoon na révélation fofé ci Ligue 1 euh, bu France aujourd'hui nak liñu wax ci mom moy concernant équipe nationale du Sénégal ak moment lim ci waxone ci atum 2018 donc mom ci ben interview bu mu def ak record donc mom lañ nañ ko ci entre Sénégal et France et tout ça donc on donc mi ngi équipe nationale Sénégal donc équipe nationale du Sénégal euh, ko lol non sélection bi mais euh, amagul nationalité sénégalaise mais am origine euh, sénégalaise donc mon loolu xam ko la donc bàyyam fi la fi et tout ça depuis 30 ans papa mi ngi dund fofé ca France mo France judo. néna fi la yu donc jaar na ci petite catégorie équipe de France et tout ça donc nee na moom français la jàppe boppam instant bi premier objectif am mooy jouer ci équipe de France mais attention cela ne veut pas dire que euh, il n'aime pas le Sénégal il aime le Sénégal et que aujourd'hui premier objectif bi mu am jouer avec les Bleus mais euh, interview bi yàggoon je pense que entre temps mën na fi changer euh, avis parce que entre temps Sénégal a na fi Coupe d'Afrique jël na fi li nga xamante dem na fi euh, fi nga xamante ne mooy coupe du monde jënn poulam et que équipe bi changé na y a beaucoup de grands joueurs yoo xamante ne ñi ngi ci équipe nationale bu Sénégal aujourd'hui mën nañu wax avec mën naa changé ci diggante bi parce que jamono boobu noonu Sénégal jëlagul benn trophée aujourd'hui nous sommes les champions d'Afrique et que beneen bët la ñuy xoolee am nañ Sadio Mané am nañ Kalidou Koulibaly am nañ ay grands joueurs yoo xamante ne ay joueurs de classe mondiale la kon euh, peut-être que avec changé mais la seule chose bi nga xamante ne binationaux yi moo nekk seen tête mooy que li ñuy juddoo France et que et que et que loolu rek la mën a demee parce que dëkk boo fa juddoo yu bari fa nga koy xamee dëkk bi daf lay neex et tout ça donc boo ko boo ko xoolee sa bopp rek du metti parce que euh, bu boo boo tàmmee adapté wu ci benn culture benn dëkk benn réew donc yow da ngay jàpp que ne réew bii rek a neex et tout ça mais je pense que ne bu ñëwoon Sénégal xool ko vraiment dina gën a changer avis mais c'était tout c'est un espoir c'est un attaquant qui il a beaucoup de talent et que un attaquant buteur du Google. donc je pense que a apporté euh, nañu apporter la suñu équipe Sénégal à l'avenir Si am nañ ko kon mbokki lañu leen et de wax di like di commenter